sëriñ bi dañu sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin wa taabi'iin laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil aliyyil aziim hasbunallaahu wa ni'mal wakiil assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokk jullit yi nuyu jullit di nuyoo bu sel di nuyoo bu lislaam waaye di del di ñaan sunu borom mu dolli ñu yërmandeem ak njéggalam ci barket weeru koor yi ñu nekk muy saxu ramadaan muy weeru barkeel ginnaaw sunu nuyoo nag ñuy delluwaat ci sunu njàngale ak di fàttali ci sunu jotaayuk yóbbulum ndaw ñi ñu tolloon nag ci téere bi ñuy wax al na nafis muy téere bu am solo comme niñ ko baaxoo di waxee kon mu mel ni nag suñu jotaay bi mujj jàngale woon nañu ci njàngaleem sëriñ bi nit ki bu tooñee boroomam nan la koy jéggaloo ci jéggalu gi war waxoon nañ tuubal yàlla am na ay sart sart yooyu waxoon nañu ñaata sart la waxoon nañ it ni nit ki di tuubalee boroomam ci anam ba mu waree mu mel ni nag nit ki bu tuubalee yàlla ba pare war na xool doomu aadama yim tooñoon mu jéggalu leen loolu la sëriñ bi waxoon na nag farata ci nit ki mu jéggalu moroomi doomu aadama yim tooñoon ndax bu ko defut ëllëg yowmal xiyaam dina ko rëccu ndax yàlla kat ku bari yéen mànde la lool ba nga xamee ne nit ki lépp lum ko tooñ rek ak lum rëy rëy te bokkaale wu ko yàlla mën na ko koo ndax yàlla ku bari yéen mànde la waaye nag yéen màndeem jooju daf cee boole ak maanu mooy nit ki ak moroomu nitam lum ko tooñ yàlla daf cey maanu ba mu fay ko lam ko tooñal kon nag nit ki war naa bàyyi xel ci ay jëfam digganteemam ak moroomu nit yi kon nag moo taxoon sëriñ bi wax ne war naa delloo tooñaange ci moroomu nitam kon nag moo tax mu wax ne summa mazalimu topp tooñaange ya atat dikk na xismay ni di ñaari xaaj am waalan alal ya axraadan ak der ya bi xayrin may ni ci lu dul nar fal yardudi na delloo al amwaala alal ya lil arbaabi ñeel seeni borom in wujudu ndeem fekkeef na leen ad dëhra ci jamono bi lartiyaa bi ci lu dul déng-déng bi lartiyaa bi ci lu dul sikki sàkk summa isaalam yuujadu topp ndéem fekkeefu leen fal yardu di na ko delloo li waarisihim ñeel woy dondam bila taraddu di ci lu dul deng-deng summa isa lam yujadu topp ndéem fekkeefu leen ci jamono tasaddaxa na ko saraxe an hum walif ñoom bihaa ca moom alal ja kaza naka nii xakaa la ko nettalee man ka nga ni te xàq xaa dëggal na mu wax na kat kon tooñ ji nit di tooñ moroomu nitam dañ koo séddale ñaari xaaj benn xaaj bu njëkk bi mooy tooñ ji ki di tooñ moroomu nitam ci alalam mooy bi njëkk moo xam dafa sàcc alalam ci lum yëkk ak ci lum yëgut wala daf koo lëntal ci lum yëg wala ci lum yëgut wala daf koo yàqal alalam ci lum yëg wala yëgu ko wala lum mën di doon rek bu dee ci wàllu alalam la war na nit ki mu jéggalu ko te ni koy jéggaloo mooy mu jël alal jam ko tooñoon dem ba ci moom delloo ko alal ji daal di koy baalu wala mu dem ba ci moom bu dee mënu koo fay alal ja mu xamal ko ne alal nangam kat maa la koy yore lan wala maa la ko yàqaloon wala maa la ko jëloon ci yow ci loo yëg wala ci loo yëgut jéggal mu ko kon daal nit ki war naa jéggalu moroom nitam ci alalam bu dee tooñ na ko ci alalam ci anam bu man bu dee nag daa dem ci nit ki ngir jéggalu ko alal jam ko tooñoon wala mu yàqoon ko wala mu lëntaloon ko waaye nag fekk nit ki faatu maanaam nekku fi na xool ñi nga xam te ni ñoo ko dond mu jox leen alal joojee te jéggalu leen bu dee fekk fi ñi nga xam te ni ñoo ko dond xamu leen na jël alal joojee saraxe ko te bu ko saraxee mu yéena waa joojee yoolu sarax bi mu ne nag loolu mooy li war ci diggante nit ki ak moroom nitam ci bu ko tooñee ci alalam kon waxoon na la ñaari xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy tooñ ci alal kon tooñ ci alal gi noonu nañ koy delloowee mu dee bu dee ñaareel ba nag ci la jëm si mu ne waye saxillu dana sàkkoo daganlu kullu xet din bépp der akalaa boo xam te ni lekkoon na ko bi xiibatin ci jëw aw xas min wala xas aw sat min wala ŋàññ jalaa gog feeñ na in kaana ne nekk na haadiran di aji moom mim tooñ wa amma in fuqit ndaa ndeem ñàkkeef na ko fa yuksiran kon na bëril xayran aw yiw la xallahu ndax le moom yajit dana am say an dara yu waddi goog dana jooxe mooy goog dina fay xàqa kullihim xàq képp ci ñoom bihi ca moom mustaxfiran muy aji jéggalu wa yarju ak muy yaakaar bi rabbihi njëggalu boroomam kon xaajum ñaareel bi mooy nit ki bu dee dafa dafa tooñ moroomu nitam ci aw deram ci yaramam maanaam lu mel ni daf koo jëw wala mu saaga ko wala mu xas ko wala mu yàq ab deram ci loo xam te ni yëg na ko wala ci loo xam te ni yëgu ko nga xam ne daal nit ki tooñ na moroomu nitam ci aw yaram kon war na koo dem jéggalu waaye nag ni mu koy jéggaloo mooy bu dee daf koo xasoon wala mu jëwoon ko wala mu yàqoon ab deram te fekk nit ki mu yàq ab deram wala mu jëw ko wala mu xas ko yëg na ko te mu naqari ko nga dem ba ci moom xamal ko ne kat maa yaaxoon sa der kat te naqari woon na la wala maa la jëwoon te naqari woon na la wala maa la tooñoon ci wàllu wii te naqari woon na la jéggalu ko mu jéggal ko bu dee nag daf koo tooñoon wala mu yàq ab deram wala mu jëwoon ko waaye nag nit ki yëgu ko te te mu xam ne bu ko ko waxoon dina ko naqari lool ba mu yegg ci mën na koo loor sax kon bu boobaa nag du ko ko wax du jaar ci tooñaange ja waaye na fexe lépp lum defoon nit muy muy ci wàllu tooñaange na fexe dem jéggalu jéggalu ko te bu jéggaloo nit ki ba pare nag na jéggalu yàlla ndax nit ki bu tooñee moroom nitam day nekk ñaari tooñaange ndax tooñ na yàlla ndax yàlla moo tere loolu lee mu def mooy tooñaange ga jooju mu def ko kon tooñ na yàlla tooñ nit ki kon bu jéggaloo nit ki ba pare na dellu jéggalu yàlla tooñaange yooyee waaye nag tooñ nit ki ci wàllu alalam moo gën a jàppandi nga fay ko ko nga tooñ nit ki ci wàllu deram ndax nit ki boo ko tooñee ci alalam delloo gi mën naa jàppandi waaye nag bu dee ci deram nga ko tooñ naan ci aw yaramam bu dee fekkee ko ci jamono gisatoo ki nga tooñoon kon delloo ko dootut yombate bu dee alal moom danga koy saraxe waaye bu dee danga ko dangaa nit ki ci wàllu yaramam delloo ko dootut jafe dootut yombate ndax gisatoo ko xamatoo fu mu nekk moo tax sëriñ bi digal na leen kon na nga baril aw yiw baril looy jaamu yàlla ndax lan ëllëg yomal xiyaam boo dajeeg moom nga xam ne di nga am yiw woo ko fayee ndax gisatoo ko xamatoo fu mu nekk kon nag lu jar a wattandiku la ngay toog nit ki ci wàllu jëw ko wala xas ko wala ŋàññ ko wala yàq ab deram ba ku ko gis jàppee ko loolu nga yàq ab deram fekk amul wala yàq ab deram foo xam ne yëg na ko wala yëgu ko kon xeet yi mel noonu lu jar wattandiku la ci nit ki ak moroomu nitam ndax luy topp nit la ba ilaa yawmi diin te bu dee danga nga ko def nit ki ba pare xamatoo nit ki gisatoo nit ki fu mu nekk mënatoo ko jéggalu kon li fi sës mooy na nga bari looy jaamu yàlla ndax ëllëg nga mën koo fay te nga jéggalu yàlla te yaakaar ci yàlla mu jéggal la loolu rek moo la fa mën a nekk wala benn it bu dee jaam la boo xam te ni suñu boom daf koo gërëm mën na koo gërëm ba xam ne kii kat lim tooñoon lépp fexe naa delloo lim tooñoon jéggalu na kemtalaay kàttanam nga xam ne fii la mën a yem di ci des kat xamatut nu mu koy def ndax mënu ko wala gisatut kat ña kam war a jéggalu yàlla mën naa gërëm jaam ba fayal ko digganteem am nit ki loolu mu ko yore waaye faaw moom nit ki li mu yoreel moom nitam dina ko fay moo xam ci alalam la moo xam ci deram la kon nag loolu mooy ñaari xeeti xaaj tooñaange yi nga xam te nit ki mën na koo tooñ moroomu nitam kon loolu lu jara bàyyi xel la lu jara teey la mooy nit ki war naa sàmm ci ak moroomu nitam alalam war naa sàmm ak digganteem ak moroomu nitam aw yaramam ba ko ci xas du ko ci ci def dara kon ñaar yooyu yu xel la lu mënta ñàkk la ci nit ki mu jéggalu moroomu nitam yi nga xam daf leen a tooñoon kon dañuy wàcce kàddu yi fii di wax ne lépp lu fi jub nañ xam ne ci yàlla la lu fi dëng ñu xam ne ci suñu jëmm yu xeebu yii la ñuy sant it mbokk yi nga xam te ni dañuy teewlu jotaay bu baax gis nañ soññ yi gis nañ gërëm yi gis nañ yu baax yi ñuy séq ak ñun gis nañ rafetal gi lépp nag dara waralu ko lu dul yàlla kon ñu ngi ñaan suñu borom fay leen fay gi gën ñaan suñu borom jéggal leen seeni bàkkaar yokkal leen seeni tiyaaba te dëppale leen ak ngërëmam moom yàlla kon ñu ngi wax ne in uridu ilal islaah mastataxtu ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi